wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Sanjoogu Mbeng sëriñ Sanjoogu Mbeng ngay wax ak yow waaw Sanjoogu bàyyi leen Mamadou Makhtar waaw mais bàyyi ko mu nuyoo <laughs> sama taalibe mu ngi ci jàmm ma sa taal bu baax mi ngi nii ci jàmm de mi ngi nii tey sol na benn bële boo xam ne macha allah <laughs> macha fa tabarakallah waa pël bu rafet lu muy wut ci studio bi nii eh, jox naa ko ndigal na la ko jox ah, mu jox ma ko Hmm, ndigal la wàcc na moom moo ah. ma joxee ndigal day exécuté. waaw ah, d'accord noo def yaa ngi ci jàmm. waaw sant alhamdulilah. aywa ñu bàyyi la nga nuyoog auditeurs yi ñu ñëw ak yow ci li la fi indi tey. waa ñu ngi nuyu auditeurs yëpp di leen jaajëfal di nuyu mbooleem ñi suivre Walfadjri comme ni ngeen ko waxee di nuyu Serigne Sidi Abdou Lahad Mbacké ah. euh, mi nga xamante ne mooy xalifa Cheikh Abdou koy ñaanal yàlla guddal fanam wëral cëram ak mbooleem njabootu Serigne Touba gi ak euh, kilifa yi baax ci wax yëpp ko Matar. allo Sohaibou da ngaa ne ci tunnel yi réseau bee doon dem. Ah, wala yaa ngi ci toj wala toj wala doo marto yee du yóbbu réseau bi. waaw marto yi la marto yi la. comme nu nga ko waxee rek euh, fi mu nekk nii gannaaw ba ndigal jugee ci sëñ Mountakha Bassirou Mbacké. Mm-hmm. ne daal gaar bi dafa am ay parti yoo xam ne xale yi dañ fi doon nekk sàmbaabo yi. Mm. di fay faat ay nit. Mm. di fa def naka sudul noonu. Mm. nañu ko dindi. bi ñu koy dindi nag sëriñ bi daf cee raaxaale ne lépp na dañ maanaam mbedd trente bi vingt huit euh, cent vingt bi mhm. lépp na dañ parce que foofu mën nañ faa def deux voies mm. jaaxal nit ñi nag mooy am na yoo xamante ne mhm. ñu ko doon jaayante ci seen biir waaw na ñu ngi ko jaayoon bañ tabax fa gis nañ fa ay R plus deux mm. yu bëree bëree bari sax gis nañ fa sax ay R plus trois mhm. waaw boo koy xayma dina yegg daanaka lu jege cent millions dëgg la lépp la ñu dindi bàyyi faali ñoom bi ñu leen joxee ndigal mm. fu ne lañ jógee ci biir réew mi Diourbel Kaolack Saint-Louis. Hmm. Ziguinchor ñëpp ñëw am na ñoo xam ne dañoo fanaan. d'accord ñu xëyee nag hmm. dañoo xaar sëriñ bi sëñ Modou Mbenda. Hmm. Euh, mu jox leen ndigal. ñu tàmbali. ah kon tàmbali am na ñoo xam ne nag seen kër seen kër lañ génnee ki marto man damaa yéemu man. maanaam génne seen kër ay marto di toj di toj xam naa dinañ ko gis ci image yi seen kër lañ génne ay marto lañ indi di toj xaaruñu sax. Euh, oto euh, kii bi euh, euh, gri bi maanaam ñoom ba ndigalu suñ ah, Muntaxa jóge daal avant ñuy toj seen kër génn nañoo ak seen i marte di fëgg voilà non bi bi bi bi sëñ bi génnee bi mhm. ci gën a neex na mooy mhm. port parole bi waaw Baye Fall yi mhm. nee nañu amul kenn ku résister nee nañu sëriñ bi bu jox soxla woon seen jëmm yi sax di jox ko ko donte ay million la waaye comme ndigal la ñoom ñëpp exécuté nañu seen porte yi porte yi nekkoon ci miir yëpp dindi nañ ko tey soo bi ñu xëyee la Senelec ñëw takk courant yi ci kii yi mhm. bu ko defee nag gri bi commencé di dindi ñoom Baye Fall songu mbir ma ba ñu xéewloo ba noppi seen ndéego yi daal mhm. def yëfu caameen yooyu ci lañu songu mbir mi mhm. te nag sëñ bi aussi jox na leen ay bernde yoo xamante ne euh, ñoom moom la ñu war a jëfandikoo seen porte-parole bi nag nee nañu fii ak ñeenti fan am nañ yaakaar ne bant dootul des foofu parce que nee nañ ñu yem rek ci toj ko waaye dañ koy buub te sëriñ bi leen foo xam ne lañ ko war a sotti fa lañ war a sotti garaawaay gi daal gravats yi yëpp. ba pare nag dañu koy dindi kon daal euh, jàppal ne tey fi mu nekk nii coup d'envoi bi. Mhm. joxe nañ ko tey. ñëpp nañ jóg parce que foofu jàpp nañu ne mën nañ ko def deux voies nit ñi di dem ak a ñëw. te it euh, li jaaxal man li ma jaaxal mooy foofu naka la ko nit ñi doon ko jaayee ñi am ñu ko dëkk te li ci gën a doy waar mooy amuñu woon amuñu woon euh, autorisation wala boog ki leen ko jaay loolu man daal affaire bi jaaxal na ma. donc loolu moo xam naa nañ ko lijjanti. kon xam aussi ci côté marché ba. Mhm. ay commercant yoo xam ne. Mm. dañoo demoon ci sëñ Bas demaatoon ci xalif bi. Mm. pour wax ko ne ko ñoom nañ leen fa bàyyi. parce que ñoom ci la ñuy daan seen doole affaire yooyu. Mm. waaye nag euh, bi ñoom bi ñu ma waxee loolu man comme mënuñu jot xalif général ñoom nee nañ dem nañ ci xalif gisuñ ko. dama tappewaat ci ñi nga xam ne ñoo di bàyyi faale. waaye seen porte-parole bi xamal ne ma ñun benn ndigal lañ jot. ñu liggéey ci sëñ Muntaxa beneen wàccagul comme beneen wàccagul nag bañ jotoon moom la ñuy appliqué. ñoom ñooñu. Euh, nañu xool waaye nag ñoom commerçant yi dañ doon ñaan rek. Mm. waaye wax nañu ne aussi fuñ leen yóbbu nañ fa dem. bu leen sëñ bi soxla woon seen i jëmm aussi ñu dem fa looloo ci neex. donc Baye Fall sax dañu ne tey jeunes yu bëree bëri ñëw nañ mm. waaye bi ñu ñëwee ñu bëri dañ ne soxlawuñu woon sax ñoom ñuy ñëw. Mm-hmm. parce que duñ dara du fa xew. li leer mooy. Euh, ndi euh, ndigalu sëriñ bi moom. gars yi dañ koy exécuter à la lettre. macha allah kon daal jàppal moom aar ba mu boo fa demee parce que li ma ni misaal bi mooy tane ma boo taxawee ci tali bi ci euh, euh, mbàndum ndox mi. Mm. da ngaa war a gis tali ndaamaatu ba bu dee xam nga Touba. xam na waaw daanaka sur un kilomètre lépp lu fay bâtiment. Mm. lépp lu fay cantine lépp lu fay place. Mm. lépp lu fay immeuble. jóg na d'accord fa ngay jóg. macha allah kon am na solo xam naa li ci des dinañ ko xaar ci télé bi jomb lii nga ñuy wax image daa daañu ko gis fii ak 13 heures incha allah. incha allah amul benn problème. jaajëf sëñ Makhtar ci liggéey bu am solo bi di leen félicité jërëjëf jërëjëf waaye Serigne Sanjoogu Mbeng jërëjëf jërëjëf. merci merci merci. <laughs> kon mu mel ni alaaji dooley sëñ Bàmba feeñati na ndigal feeñati na euh, wane nan itamit nii euh, la sëñ Muntaxa amoon ca xale yi ba ñu génnee di def yëf sëñ Muntaxa génn ñu ni ko Mbàkke ñoo ngi jégglu ma jigéen feeñati na parce que lii xew tey ca Touba fu mu xewoon fu ne ay GMI dinañ fa wàcc ay policiers ak gendarme fa wàcc waaye nag Euh, ki ñuy toj këram avant ñuy ñëw toj këram moom génn na ak martom di wax ni même bu sëñ bi soxla woon na mu jox ko ko kër kër gi mu tabax xayma ko ci cent wala cinquante millions pare na pour rajaxe ko ngir jëfe ndigalul sëriñ Muntaxa Mbàkke boo lii la ñuy wax rek naan kilifa moom daa baax ci dëkk bu fa nekkee rek lépp jaar yoon mm. waaw boo boo seetee nag lii moom comme que yàggoon nañu dégg ay problème yu fa amoon ci Samba Boy ba am ku ci jotoon ñàkk bakkanam mm, mm. man jàppoon naa ni sax balaa sëñ bi doon joxe ndigal état moom moo fa waroon jiitoo mm. parce que dañ fi teg ay euh, bërëb yoo xamante ne nii pour ñu ñuy aar la ñoom ñoo waroon dem jiitu loolu mais comme que dem nañ ba xalif bi moom moo joxe ndigal taalibe yi génn tasaare foofu noonu mhm. son bu loolu moom fa dëgg yàlla deful defuñu lu dul rafetlu ko même su fekkee ni ñee dañoo ñàkk a def li ñuy wax rek mhm. parfois euh, da ngay bàyyi li nga war a def ba keneen moom mooy ñëw defal la ko à sa place te loolu tamit jaaduwul jàpp naa ne sëriñ bi waroon na nekk si yeneen yitte yi dul nekk di lijjanti ay ay ay ay gox ba nu mu mel xam nga ah. euh, boo seetee mhm. li nga xamante ni bi moo ci mooy ñoom ci seen jëmmi bopp maanaam ña dëkk foofu mm. eh, li sabab dindi gi waaw mooy dafa am ay wëyu yu fa yu ji leen may lekk mm. te dimbaliwuñ leen ñenn ñi danga leen di boole mm-hmm. boole leen mm. moo leen di dimbali am na koo xam ni tey dañ koo dénoncé tey moo tax mu jub si buñ ko dénoncé wutoon. Uh-huh. maanaam di ko jox lekk loolu dafa mel da ngay encourager nit ki. Uh-huh. ci li mu ne. dëgg la mais su fekkonte ni bi tey ñoom. Uh-huh. dénoncé woon nañ wa ilaa ñoom ñu dajaloo woon. waaw doon xeex mbir mi. waaw di wax ne dimbali leen ñu ci ñi ngi ñaan sëñ bi mu dimbali ñu ci ñii. bu boobaa buñ ñëwee it seen kër mën naa bañ a toj. déedéet kon mën naa am sax marché bi loola du fa gaaw a jige tabax ndax ndax ay ñaawteef amu fa. parce que nga gis ni. lii nag nit ñi war nañ cee jàng. képp ko xamante ni gis nga ay booy wéyu quinze man di fréquenté fenn. Hmm. teel cee commencé jóg. waaw leen. dëgg la que lu ko moy hmm. lu mel nii mën naa mëpp ci sa kaw. Hmm. di naan kii du yem ci bopp borom. lii nga wax nag. mooy li am. mooy que lii moom Tuubaa rek la mën a am. jàmm nit ñi di toj jàmmam mm-hmm. waaye feneen fu mu amoon mm. eh, bakkan yi gars yi bakkan la ñuy wax ne moom la ñuy jox allahu ah. akbar dëgg la de lii nag day wane ngëm gi tamit fi mu toll wallaay wallaay ca ñooñu te jàpp naa ni même buñ tojee seen kër ba pare it mm. gëm naa ni sëñ bi dana leen wutal ay terrain yu normal dëgg la parce que bu ñu dajaloowee dem mën nañ leen wutal terrain yi normal ci biir dëkk ba mm-hmm. ñu dem mën faa dëkk dëgg te loolu nag mi ngi des ci ñoom mm-hmm. ñu daadee topp mbir yi waaw parce tabaxoon nañ. waaw fu tabax waruñu fa tabax. Mhm. ndaxte demee na nii ak nii. Mhm. mais nag Touba it dëkk la boo xamante ni bii tamit. Mhm. sëñ bi moom wax dëgg fa yàlla. ci yërmandeeg yëpp ci lay doxal ak ña nga xamante ne bii. ñooy ñi naa daal ñi doon dagg affaire yi di ko jaay. waaw ñooñu tamit war lañ leen gëstu ji pour xam. waaw ñooñu xam nga duñ neex a xam. xam nga bu dee comme li. jamonoy sëñ Saliou wax. yow nga yorab kantinu 4 mètres. Mm. man ma am kantinu 4 mètres. Mm. sooy bu am kantinu 4 mètres. Mm-hmm. kii ñëw jënd ko def ko kër. waaw boole kantine yooyu yëpp. dëgg la fekk ay kantine la woon. Mm-hmm. ñu jël ko def ko kër tabas ci mbedd. Mm. boole waale ko ci biir ne bis la. xam nga yooyu. dëgg la pour nga mën a dem jëli jiwaat mbir yi. mën naa amit ña ko jaay ñu ci bari nekkatuñ fi. parce que nag jamono Serigne Saliou la yàgg na. donc li ci am solo. fi mu toll nii daal ñoom man li ma kii daal mooy ñu jéem a dajaloo. Mm. Mm. ñoom ñooñu. Mm. jéem a dajaloo après jéem a dem gis sëñ bi waxtaan ak moom. d'accord xamal ko ne ko kat ñun ñii ñoo fi amoon kër. d'accord waaye yit bi nga joxe ndigal yi wéyee nañ ko comme ni nga xam noonu lañ ko kiiwee. macha allah ñaan ko buñ koy am na feneen foo xam ne mën nañ leen faa wutal. Mm-hmm. ñu wutal leen fa ñu xool foofu nu ñuy mën a def dana metti na. Mm-hmm. mais nag aussi tamit nañ xam ni. li ñuy fu ay nit di faatu kenn mënu ko toog tamit di seetaan bu dee wëy yi dañ fa nekk di gens dañ lay suuc daw dugg ci ruq bee waaw xam nga wala ñu këf sa yëf duggagu mu insécurité am loolu tamit il faut euh, ci kuy bi dëkk xool foofu nu ñuy def pour kaaraa kaaraange tamit mën faa am pour ñeneen ñi d'accord waaw mi ngi noonu xam naa ni suñ Baay Faal bi da nee na day dem moom kan ca toj ma Assane yeex na de <laughs> non non yi tey lañ ko moom mii bu dee moom ak moom rek la <laughs> moom la ñuy xaar day te nag gis nga attan naa dem ba yegg nag for xeer daal yi fekk mën naa doom romb mën naa ñoom ñu ne toj bi jeex na muy laal ci kër jàmm non toj bi de quatre quatre jours la ma ne xam nga mën na yegg ah. mën na am bu yeggee bu demee balaa muy kii dem suba fekk ñu ne ko toj ba jeex na mu tabas ci kër jàmbur waaw ndax de moo a doon envoyé yi ñu war a toj naa ma jóg ah. bii daa war a jóg bii day jóg waaw bii te moom nekk Dakar naan ma bii day jóg nekk Dakar bii day jóg dana dem ba laal kër jàmbur gu war a jóg war a ay ah. ma jigéen euh, ñaari euh, gendarme yi nga xam ne dañu ñëwoon may réer seen ay mbokk euh, ñu daal di koy jeexale gannaaw ba nag fële ca tefes bu Cap Manuel nee nañu nag ba ñu xëyee démb mm. gis nañ fa li nga xam ne mooy koor bu commencé yàqu Euh, nee na ñoot am na ay yeel daal yu ay yu ñuy dajale ci dëkk bi am ñu njortu ni ñaar ñooñu est-ce que du kenn ca ñooñu ah, dafa am ñu njortu loolu ci mbiru ah, Pape Alé nag mi ñu jàppoon ñooñu dañ caa taqelaale ca Pape Alé fa mu nekk ca prison ba nee na ñii xamu leen musul jokkoo ak ñoom laalewul ak ñoom ci mbir yi nga xam ne jàpp nañu dafa laale ñoom. waaw <laughs> daal sooy bu comme coow li daf si bëri te enquêtes yi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi koy def. xam hmm. nga si xuus parce que ba léegi nii xamuñu. ñoom lan moo leen rey ak lan moo leen dugal foofu ak anañu ay peeru dàll lañ fa gis hmm. ak euh, euh, nappkat yi ñuy doon wax noonu en tout daal d'accord vu ñu xool daal ba xam kañ la ñuy feeñ alaaji ba pare ba hmm. noppi waaw waaw dafa am kii di ma bind leer mi message ba noppi te moom bi ma xoolee photo profil bi kii bébé la bébé bi mënta bind lii message te xaw ma numéro bi waaw alaaji waaw heure bi jot ñu bàyyil bébé boobu waaw ah temps bee jot di waaw noonu waa ñëwal mais mën ngaa kii 58 58 waaw ñëwal ci koor yi ah. ñëwal ci koor yi nga xam dafa réer gannaaw ba ñu ni fa mu réeroon ca comme nga xam nga mbir la moo xamante ne bi mu ngi ci enquête waaw xam nga lu ne ci enquête moom euh, di ci xuus ku ci xuus yaa ngi ci erreur ah. waaw parce que loo kenn xamut dara ñuy déglu ñi nga xam ñoo ñu ci war a xamal nañ bàyyi ba ñu ñu ci war a xamal wax ñu d'accord ñuy soog a xam nag nu ñuy déggee liñ ñuy wax ak li nga xamante ni bi moo xew ci penc bi d'accord waaw macha allah kon ba altine jàmm incha allah ci kàttanu borom bi yàlla na Sénégal am ndam incha allah ci